waaye su ma ñëwee sa diggante yow ak Boy Niang sa diggante yow ak Boy naka la tàmbalee ba fi ngeen yegg nii tey. man sama diggante ak Boy Niang du hasard parce que man euh, dama àndoon ak Balla Gaye euh, ma am ci lu kenn amul nee la Balla Gaye tey su nekkee li mu doon am naa ci part de responsabilité bu mag a mag a mag ci maanaam ci cadre réussite ci làmbam mm-hmm. waaw ndax maa ko bëggloo làmb amoon na lu ma ci mënoon loo xam ne su amee problème nit ñi dañuy dem dem ne Bourkhane xanaa yëgoo lii te su ma ñëwee mu réglé mu joxoon ma nag cër bu mag a mag a mag a mag mais li ma luppe ci ba Balla Beye yëpp am naa ko si Boy Niang mais Balla ni ma mel booy Boy Niang nii noonu laa meloon ak moom il suffit ma xool ko nii rek si ay bët mën nañu waxtaan loolu moo ma may tamit chance boobu laa maat ci Boy Niang Boy Niang ci plateau wala Boy Niang ci biir làmb du soxla sax may nekk di wax ak moom ay wax yu bari il suffit que ñu xoolante rek xam na lu ma nangu ak lu may bañ waaw su fekkee ne bëgguma mu wax lii su ma ko xoolee dina xam ne bëgguma mu wax loolu su fekkee ne bëgg naa mu wax loolu su ma ko xoolee dina xam ne bëgg naa mu wax loolu alors complicité boobu nag moo nekk ci ñun yàlla defal ma ci aussi loo xam ne xam nga nga ànd ak nit di ko tàggat comme dégal mi ma la ak ñoom Mansour Diop waxoon naa la ni ñoom ñooñu maa leen doon tàggat alors léegi nag euh, euh, dégal ma yore ko moom ñoom Mansour Diop ba tey jii dégool bàyyi am doomam ma ñëw yoraat doom jooju loolu sant yàlla magu ma ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a yàlla aussi defal ñu ci loo xam ni booy ñaa man du sama du sama du ma du ma manager simple man man papaam laa papam laa te it lépp lu ma am comme potentiel dama ko si yàgg a def man bu njëkk ba bi may doog a ñëw amoon na ay entraîneur mais entraîneur yi fi nekkoon il fallait ñu jox leen expérience muy Baba Wade ak Cheikh Ndiaye mi tey jii alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamante ne c'est des jeunes yoo xam ne ils sont dociles ñu nangul ñu ñu tette leen ba diplôme entraîneur yi xew ñu dem defi stage am seen diplôme mais ñun bi ñuy ànd boobu temps loolu amul mais xam nga kii la jitu ci néeg moo lay wax fi ngay toog ñoom tamit ñu nangul ñu ñu ànd ak ñoom mais boo gisee sax man léegi léegi saal bu ngeen fa demee du ngeen ma fa fekk mais bu njëkk ba amul ba heure booy ñëw entraînement te doo ma fa parce que il fallait moo am ñoo xam ne dañ leen di encadrer teg leen fi mais bi ñu demee ba nga xam ne ñoom xam nañ seen yëf ñun duñ dem di fa bokkanteeg ñoom dañ leen di xool su fekkee am na lu ñu rectifier ñu leen nangam ak nangam soo gisee même ci ay combat mën naa ñëw wax booy ñaar directement mais souvent damay woo Cheikh Ndiaye. ne ko waxal sa waa ji mu def nangam ak nangam ak nangam ak nangam parce que nag cumul de fonction yi day yàq yu bari il faut kenn ku nekk ñu jox ay responsabilité mu koy def ba mun ci mën a gis boppam parce que loo gis xëy na euh, théorie baax na mais pratique moo koy accompagner alors euh, Boy Niang am na sax combat yoo xam ne man maa toog ci chaise ba chaise entraîneur su ngeen xoolee seen archive di ngeen ko gis alors mu nekk koo xam ni dama daan yàlla mu doon dimbale ma ànd ak euh, Ndeye Ndiaye Tézen ñu ànd ak Boy Niang ma ñëw àndaat ak Kanji production ñu ànd ak Boy Niang ma ànd ak Assane Ndiaye Assane Ndiaye nag il faut ñu taxaw fa tuuti parce que bokk na ci ñi nga xam ne sunu carrière moom daanaka moom lañ ci àndal ba dégg daali yi. Euh, dañu doon dem ci stade bu mag bi dañ koy feesal ba du am place te boobu Boy Niang cheragul sax ñu dem bëre ji lig Nicolas Demba Diop yàlla dogal ñu daanu ci ama neex ma seetiwaat Aziz eh, Assane waxata waxtaanaat ak moom mu ne ma ah non da ngeen ma bàyyi woon na ma ne ko non bàyyiwuñ la façon marchandise la boo xam ne ñun dañ koy utiliser kenn ku si nekk di si war a gis sa bopp gagnant gagnant te yow kii soo ko bëree loo xam nga lim lay lim lay indil mu jox ñu Dolf drapeau Aïda Mbodj ñu def kenn doon. su ma su ma ñëwee ci Dolf euh, foofu da ngeen tegoon seen palier escalier yi ngeen war a jaar waaw wala déet parce que su ma juumul da ngeen jël Dolf daan ko jóge ci Dolf dem jëli teg leen man daal jàpp naa ñett. ba bi ngeen di jël Zos déggoon naa foofu da ngeen fay jaar. waaw xam nga euh, bi ñuy bi ñuy bëreeg Dolf boobu il fallait ñu wane ne ñun ama neex ñu mais boobu bi ngeen di jël Dolf yéen a ngi préparé parcelle que Kandji production. waaw booba dañoo jógee ama neex da ko daan. Abdou Kandji ne euh, vraiment mënatul a seetaan booy Niang parce que sa Boy Niang a besoin de soutien il faut mu yóbbu ko sama kër. R plus 3 la mu jël bi jox ko moom kenn ak ñu war a àndal yore seen lépp Abdou Kandji mention spéciale te euh, nit la koo xam ni moom musul seetaan booy Niang pour dire euh, da daan supporter Fass jour bi ma ko jëkkee ne ko ne damaa bëgg nga jàppale Boy Niang dafa nu ci man affaire làmb moom dama cee bàyyi dama ko bàyyi parce que waa fas moom ci laa nekkoon mais daal vraiment làmb moom bàyyi naa ko mais rakkam bu ñuy wax Moustapha Kandji da nga koy dégg souvent ci euh, staffu Boy Niang mu nekk xale bu bëgg Boy Niang xale bu ko bëgg te yàlla rek tax koo xam ni bi ma koy indi foofu moom euh, kër gi ni mu nekkee étage su ma woowee téléphone damay wàcc ci suuf fekk ko mu taxaw ma jël jël téléphone bi woo booy Niang jox ko mais loolu rek da ko doon doy fait que mu déggoog booy Niang ba ni mu commencé ñu commencé ko miin mu dugg li mu ko njëkk a dimbalee cinquante mille ak cinquante t-shirt alors magam nag gis ni rakam mel ci Boy ñaa mu jóge ci defet boobu ñoom ñaar ñu jooy ko jooy yu metti euh, mu jël ko yóbbu ko parcelle doo fay lekk doo fay courant doo fay ndox jënd ordinateur comme c'était un élève lépp di ko encadrer correctement a ah, ci diggante bi nag ñu jël Dolf daan ko fekk daan nañu Pape Sène alors euh, dem bëri ak saa Kajoor boobu nag la ñuy dugg ci Aziz Ndiaye mm-hmm. Aziz bi ñu njëkk a gisante ñu ngi gisante place su Pape Diagne mu ngi ànd ak papaam góor gi aale mm-hmm. ñu ñëwee mu ne ma léegi yéen kan ngeen bëgg ma ne ko Sa Kajoor wala Less 2 ma bul sacrifier doomu jàmbur seetal ñu mu tollool nga jox ko ko ma ne ko mbër ku mu ñemee rek mën nañ koo booleeg moom loolu nag li ñu ko mayoon parce que gisoon nañu ni Boy Niang euh, dafa doon entraîné ak ñu ko ëpp doole fuuf ñoom Cheikh ñoom Boy Sey ñoom Malal ñooñu ba pare mu nekk Benjamin ci biir groupe bi euh, ma ne ko ñun mbër ku mu ñeme rek mën nañ ko booleeg mu ne ma loolu moom du man du ma ko def mu ñibbi sept mois après mu ne ma yow yaa ngi ci Sakajor ba léegi ma ne ko Sakajor wala les de Koundiam baax na ñu taxawal Sakajor je me rappelle très bien ma ñëw fekk ko stade ba le matin xam nga le matin le organisateur bi di ñëw di defaraat emplacement yeeg yooyu ma fay jël si ay blouson mu ne ma tey daal li ma leen di wax mooy tuusal leen ma tuus mu neex tuusu ngéwél te xam ni yéen lii rek ngeen am ci làmb ji <laughs> mais loolu dopage la man keroog bi may bi xaw ma lu ma yoon wi ma jaar ndax da d'abord nee nañ ma da nga sacrifier doomu jàmbur ba pare wax ma ne ma dem di yéen daal tuus mu neex rek la ñu bëgg ci yéen bi ma ñëwee jamono boobu nag dama am ulcère bu metti te combat Boy Niang dama si daan daanu en général. ay feebar ba nit ñi di wax nit ki est-ce que dina dundaat. mais du tere dana remplir contrat bi ba pare naa dellu soit malgré bu nit ñi di manifester wu sax man du ma du ma mën a waa. alors ma ñëw boobu nag ñooy bokk lekk parce que du n'importe quoi laay mën a lekk ak ulcère bi. te moom aussi dañ ko dañ doon éviter pour muy lekk ay ceeb ak ay yu mel noonu daan jël ak en général yàpp togg ko ak ndox noonu. mu lekk ko di éviter aussi mu naan lu bari parce que sooy naan lu bari da soxla sa bopp ak yu mel noonu yooyu yëpp dañ ko doon dañ ko doon kon kii quoi alors ma ñëw waxaale ko ci añ bi munuma eh daal ñooñu dañuy kii rek bàyyi leen noonu rek bàyyi leen foofu man ko non waxuma bàyyi leen foofu làmb ji làmb ji ñu war a la et puis am na nooy bëree wax ko li nga xam ne loolu laa xalaat ne loolu lañu war a def mënuma sax loolu laay def yàlla dogal gis nga bi mu daanee saakajoor ba ma ñëwee ci Aziz Aziz dama ne ma waaye kooku ma xam ko ni jaayam di génne ay jinne ma ne ko làmb ji du làmb jinne sportivement la ñu ñëw bëre gañe ko mais moom boobu tam tam dafa doon sayte rek même du jaayam day génne ay jinne parce que surtout Cheikh Yérim Ndoumban yaa ngi dégg alaaj Samba Ndokumane mooy sa maam moo jur yaayam kéemtaan yi nga xam ne Alaaji Samb Ndoukoumane def na ko ci biir Thiès loolu bu amee set il faut mu am nu mu mel yaayam dama ne normalement shérif lañ ko war a wooyee ndax euh, maamam xutbu rabbaani la kooku il faut mu def ay mujjisaat foofu li ma manqué woon ci ci Balla Gaye numéro un dama ko amaat ci waaw ci Boy Niang mu les deux ñu bëreeg moom ndeysaan dem si yàlla si Balla yi moom ma daan indaale ak Pape Diouf ci seen oto euh, Balla ni ma Bourkhane ndaanaan nga borom xam-xam nga ci làmb mais da ngaa jum ci choix waroo woon jël lees de ndax lees euh, booy ñang mënu koo daan. te waaw te ñoo may yóbbaale seen oto. ah bi mu demee ba combat yi di jub si nag léegi mënatumaa dugg ci oto ba. mënatuma cee dugg parce que déjà combat bi jub te eh, làmb dafa fiir ah te it façon yi ñu may wax di ma woon ne dañ lay gagné kooku tamit même buñ la doon may or jamaa sax dootoo ko bëgg. moo moo toog eh, jour combat ba ndeysaan man ak moom ci diggu géew bi hmm, ñu ngi jaabante rek waaw bi Boy Niang daane lees amoon na complexe amoon na complexe bu doxoon sama diggante man ak moom pour ñu fixente ni maanaam dama ko daw ba ba yóbbu sama mbër bi ñu toogaat nañu lu war a mat ay vingt jour avant ñuy gisante waat ndax moom tamit euh, sama moroom la yàlla dogal mu nekkoon sama xarit euh, ñu daan entraîné no ONU ONU papa Sadio Ndiaye bi simb moom moo créé woon salle boobu ñoom mbéy gi ak Sadio bi ñu tudde Sadio ñoom grand Moustapha Ndiaye ñoom suus mbay ñooñu ñoo doon fréquenté foofu nekkoon nag ay grand grand mbay gi nekk grand wu Pape Diop ak Alioune Ndiaye médaille d'or. mais ngeen jóge foofu dem jëli Baye Mandione. waaw daan Baye Mandione jóge fa dëkk Zos. dëkk ko Baye Mandione la. waaw Zos la d'abord parce que ñun bi ñu jógee ci les deux rek aussitôt Zos la ñu bëreel. boobu Malick Gakou moo nekkoon ministre sport nekkoon primature. signature contrat ba fa lañ ko defee woon ba ñu jëlee fa defet defet bu bu soof nag wax dëgg yàlla. mais daanu ngeen rek da ngeen doon daan ay nit ñëw ngeen daanu ngeen defet moom mënut soof defet moom defet rek. mais day soof si ñun neex ci. Euh, yéen a ñëw dëkk sos ngeen ñëw Zos nangu leen a nangu leen a xeex sos taxaw jàpp ndiggam nangu leen ko attaqué. boo ñaa moom dafa ñëw ragal Zos ka booba dafa am yu ci am ci am mooy. Euh, dafa am loo xam ni euh, fuite dafa am ci sunu stratégie. ñëw jos fàttali lépp. waaw non fuite moo am xam nga tey ñu toog ñu ne bu ñu demee nii lañ war a doxalee. loolu lan moo ci war a jotale zot zos. Ah, est ce que ñoo xamante ni nii. laay waxee ak yow man la fuite dafa am li waral zos jot ci. dañuy wax ne Boy Niang bu mu dëkk njëkk dóor zos. xam nga su dépendroon ci man kese loolu la am parce que ñun mënuñoo jël Boy Niang yóbbu ko France yore ko fii euh, Antoine Marie Mbengue yore ko fii boxe yaa ngi dégg alors ba pare ñuy ñëw di ñuy wax naan bu leen njëkk a dóor ñuy ñuy gëm loolu ñu jëlee ca défaite ñu nangu ko nag parce que nit bu juumee ci ci stratégie wala ci préparation beneen yoon day ñaan yàlla mu bañ ko dal. alors bii loolu amee aussi Zoss gagné ñu ñu jël euh, Baye Mandione boobu Prince moo ko tëgg. Baye Mandione ku ne xam na ni mu mel parce que nii duñu fàtte xana digganteem ak Gris Bordeaux. digganteem ak Modou Lo. waaw mu foofu laay jëm si diggante ak Gris parce que dañoo përëm ba jëkk bëre première édition ñu xeex ba nit ñi ñëpp doyal ñu tëggaat. booba Gris moo gën a préparé ci école bu mag la nekk njoon fi mu nekk daanaka mooy commandé boppam te loolu en général ay défaut la ci ci athlète athlète da nga war am ku lay ku lay mais jom fula ci combat kenn ëpp ko njoon xol bu baax kenn ëpp ko njoon parce que ma Mandione mooy mbër mi nga xam ni chaque saison même bu doon daanu mille fois dina bëre toujours loolu nag xol moo koy joxe waaw xol bu baax xam nga nit lépp lu la dal xoolal sa xol bu dee lu baax la xoolal sa xol bu dee lu bon la xoolal sa xol njoon bokk na ci mbër yi nga xam ne ñoo gën a baax ci réew alors ku xool njoon loolu mu def tey jii mu bëreeg Boy Niang ak la mu fa jëbëree yëpp booy Niang daan ko war nañu bàyyi xel ci booy Niang njoon bu ci bokk na ci mbër yi dàq bëri laa la wax moom li li nga koy rawee mooy am encadrement am staff yooyu peut-être mën nga ko cee dominer mais jom moo tax paa yéri ndem si yàlla si ndeysaan da daan gërëm Baye Mandione ndax moom jàppoon na ne ma Mandione mooy nekk le roi des arènes ndax li mu ko daan defal ak teraanga yi mu ko doon defal Baye Mandione paa yéri moo ma wax ni ma Baye Mandione da tax ma naw ko dama ñëw di ko indil pourcentage am di jël eh, ñëw di ko indil cachet di jël sama pourcentage kenn du wax benn jour foog naa muy indi fa cinq millions war ci jël cinq cent mille alors bu mu ko jëlee rek am ci jotaay ba ko ko wax ne xoola ma lii rek lii àq la ñu jur suñu doom mënuñu am ci moom lii ah nga war a jël xaalis bi nii góor gi nee na moom mu ñàkk tooy xepp ci biir saal bi xamul lu muy wax njoon ne leen xanaa yéen tey ngeen mën a wax kii xaalisam sax da ko doon yëkkati di ma ko jox pourcentage bu nekk ba muy nekk lu tuuti la koy jël tey jii mu war a jël pour pourcentage ne ko per la ñaata nga fi am mu ne tam mu nu ko jëlal daal di yëkkatiwaat xaalis ne ko paaseel jëlee moo tax paa yéeri da koy gërëm ba dee. foofu pour dellu siwaat ñu ñëw jëli bàyyi ma njoon daan bàyyi ma njoon loo gisee passage boobu yëpp ma jaare la ko fa rek pour wax statut bàyyi ma njoon ku xool Baye Mandione ak Modou Lo kon loolu kenn dootu ko fàtte. alors Baye Mandione nekk nit ki nga xam ni wax dëgg yàlla ku yàlla baaxal la. mais bi ngeen jógee ci Baye Mandione. bi ñu jógee ci bi ñu jógee ci Baye Mandione euh, euh, kii euh, rakku Zos bi. lañ ci teg guddi yooyu Garga Mbossé neexul woon bëreel. Hmm. Garga Mbossé daan fëgg la jóge fa daan tonnerre. daan ñu bari sax ci parce que dafa tegle woon ay victoire. ba muy bëreeg Boy dañ ne woon ne day daan Boy Niang. ñoo duy stade fees del. voilà animé ko tamit teg ci. jour boobu décision dëgg la jël mais yàlla dimbali ñu ah xam nga dama wax ni rek. lamb seen combat mais nag yéen seen i combat dafa yomb. parce que da ngay ñëw bañ na tey ci digg géew bi dafa mel ni dafa am yeneen yu ñuy jànkonteel avant ñu jàppante. man dama moom laa lay wax rek. mën a bari du tax nga daan ci komba stratégie mooy tax nga daan ñun nag dañuy utiliser stratégie bu baax. Sa Thiès non mystique doon mystique kon da ngay taxaw rek di léewtoo waa ji daanu mystique su doon mystique la rek jarul ngay jëm di pàdd wala ngay jàpp di accroché wala ngay def dara da ngay xool waa ji ba mu tëdd mosoo ko gis ci làmb. am na ñu fi jàkkaarloo mbër daw yaawu jaal mii. kan moo ko mystique. non Yawou Diar moom amul mystique. oh oh Yawou Diar amul mystique mu toog muy taxaw toog ak président de la république ñaata mbër ñoo fi nekk am ay ciitaam mosuñoo toog ak président. loolu est-ce que mystique président da koo xool mu neex ko. déedéet déedéet Yawou Diar bu romboon fii léegi nit ñi seen état la ñuy sëpp ñuy génn Yawou Diar la ñuy ñëw. dëgg la wala dëgg. loolu dëgg la Yawou mooy mbër mi nga xam ne président may na ko kër HLM Fass. yaaw jaal mooy mbër mi nga xam ni ministre yeeg député yi fu mu ci ñëw taxaw da ngay yàkkamte mu ñëw ci yow mystique la bu wóor ku mu gis bëgg ko du mystique xam nga lu ci nekk làmb mën a bëree du tax nga daan da ngay gën a baax stratégie sànq dama doon wax yow ci Sa Thiès Sa Thiès c'est un lutteur boo xamante ni damaa bëgg ñu ñëw ci Boy Niang comme que daan ngeen Garga Mbossé ba noppi ndax ngeen ko daan ngeen ko ngeen jóge fa jël ki nga xamante ni mooy guy gi daan guy gi. jóge fa jël Sa bi ngeen dëkk Sa Thiès Balla Gaye njëkk a Balla Gaye ne jël leen Sa ba noppi. su ngeen ko daanee ñu doo ko xool lu ñu def ngeen jël Sa mais boobu moom da ngeen décider da ngeen ñëw taxaw dëggal seen bu amul dem ma dem te ñëw da taxaw samp jaaga xeex ak xeex ak duma ko daan ko. stratégie laa wax ni la mooy daan waaye du mën a euh, mën a bëre Sa ku ne xam na ni mën na bëre ku ne xam na ne am na vivacité ñoom Babacar ak Lamine bañ ma woowee saat di mu wax rapidité Sa Thiès man leen bosam ngeen gis waaye gisu leen bu Boy Niang danaa la wax tey jii lenn loo xam ne ñu bari xamuñu ko mbër bu fekkee ne xamul distance bi mu bëreek adversaire am xamul ban sens lay déplacé mënul bëre. su xamul. distance bi muy bëree ak adversaire mhm. xamul ban sens lay lay déplacé. Mhm. mënul bëre. Euh, loolu dafa nekk loolu nit ñi ba tey de des sa xam te pour nga gagner benn combat il faut nga xam valeur combat bi ñun nag yàlla dogal na. ñun ñu ñuy bëreel dañ leen di jox li ñu moom pour mun exploiter li ñu yor ñun. mbër mi boo ki xamul dara kii bu ma ko jàppee nangam nangam te yow daana ko yaa ngi ceerar balaa ngay wax ni waa ji maa ko mën da koy daan booy ñang mi ngi jàpp ni moo mën Sa Thiès ci bi mu ko daanee ba pare mais man Jurbel laa jàpp ni kii Boy Niang da koy daan ndaxte gëmul Boy moom moo waaw mu ne ko suñ ñu tëjoo ci néeg suñu ubbee man la ñuy fekk ci kaw. boo ñaanal ko bu tey jour boobu man xam naa ne ñun su fekkee ne waa ji nii lay def ba làmb ja dañ koy daan mooy làmb ja la même chose la fa wone mhm. moo tax tamit ñu daan ko jël boo xam ni mu ngi ci anaal yi. Euh, léegi bu ñu ñëwee ci Lac de boobu moom dafa sax kii nit ñi boobu moom dañ koy brosse rek ñu jàll. noonu Lac waaye man il faut ma la lan moo ci nekk. Ah, kon boog wax pour jox la capacité boo Niang. Lac de Guiers ñàkk ko faral rek mooy tax ñu waxee ko noonu mais c'est un très grand champion suñu waxee dëgg. daanaan la. waaw nit ñi maa koy dëggal. nit ñi yow bu fekkee ne faraloo nit ki bu la neexee mais moom li muy def mi ngi koy def di gagné. te kenn mënu ko cee daan. voilà que moom mi ngi koy def di gagné mais dama ñëw rek toujours ci côté booy Niang Lac de Guiers ñi ñuy wax ndaanaan lañu yëpp daan na te Yékini kenn du naatable ak champion gis nga ne mu def ak moom Moustapha Gueye kenn du naatable ak gis nga ko ne mu def ak moom Balla numéro deux kenn du naatable ak champion gis nga na mu def ak moom. Tafatine. Zos Sow. Papa Sow Zos te ñii ma la. loolu rek doy na daanaan lañu amul kenn ku ci réussir li boo ñaa réussir quinze minutes yoo xam ni maa la dominer maa lay toucher maa la yóbbu ardo maa lay song ba quinze minutes yi jeex. mais daanu leen dañuy ñëw rek parce que foofu laay ñëw toujours. man maa wax ne erreur de coaching la bu kenn ñëw nag man erreur de coaching nga jàpp Cheikh Ndiaye la wala keneen déedéet benn groupe ñoom ñooy liggéey stratégie boo boo ñaa def parce que toujours ngeen dégg moo ko ci télé boobu ñoom ñoo wax ne téyel sa bopp. ñoo ko wax booy ñang waaw téyel sa bopp parce que lépp yaa ko def waaye dañoo fàtte ni pénalité mën na caa am. Mm-hmm. pénalité yooyu moo répercuté waat suñu kaw ba moom mu dem uti lu ëpp ba ñuy joxe verdict kenn match nul lañu la ñu déclaré ca làmb ja mm-hmm. recours moo waral ñu ne Lac de Guiers daan mais fi may doon waxee rek mooy quinze minutes yi nga xam ne foofu tamit est-ce que daanuwul non daanuwuñu. boo ñëw tegul fes. moom nag daa amul carte appui. carte d'appui carte ah man de gisuma ko. si man gis naa ko site internet yëpp wane nañ ko dañ ko fixé sax. Hmm. waaw nga làmb daal verdict biñ ko joxee. l'arbitre est le maître du terrain te CNG moom moom mooy comité de de gestion su joxee décision ñun dañ ci ànd ak moom mais man fi ma buggoon rek pour nga comprendre mooy li résister li Boy Niang résister Lac de Guiers éliminer ko 15 minutes yoo xam ni jéewul dara. te làmb jooju lu fa lu ñu fa def boo ña ko fa def ba résultat final lu ñu fay def rek dama bëgg nga wax ma ban mbër moo ko résister noonu loolu rek mooy jox boo ña capacité. man kay dama doon xalaat waaye sama xel mi laa mel ne ñëw na nees. nees jàpp na fi la déggee doo ko doo metti lu ñu mujjee. la déggee ko daal. <laughs> en toute chose il faut considérer la fin.